den ak jàmm ci xibaar ñu di koy yéen ci la gën fees la ko doore nag ni ki tey jile manifestation yi nga xamante ne bi ñu ngi ko doon nemmeeku nag ni ki tey jile foofee ca xolu Dakaaru ginnaaw manifestation boo xamante ne bi nag part ak organiser lañ ko daal di organiser nag ñoom ñi nga xamante ne bii ñoo këmbukaay nag aar sunu élection noonu lañ ko daal di doxalee tey dinañ ko càkkoo woon noonu lañ ko daal amee ginnaaw autorisation bi nga xamante ni bi am nañ ko dox nañ nag ba seeni tànk toqi ngir ñu daal di vilipaan nag yoreenu euh, nguur ko Macky Sall waaye nag ñu daal di delloo élection yi nag fam ko jëli woon loole tax na nag ñoom ñu daal di génn nag ñoom ñëpp bu ñu xoolee nag opposition bi nag ñenn ci ñoom taxawoon nan fa ñoom nag li ñu daal di xamle nag la ci ëpp moo di nag nanu delloo élection yi foofu loolee nag ñoom moom lañu daal di xamle ni ki tey jile foofee ca Colobane nag benn oto daal di saaraan ba mbëkk nag ay nit ñu ci jot ñàkk nag seen bakkan lu ci ñaar ci ay nit ab camion moo amal lu mel noonu ne ginnaaw jëye jooja nag am na ñoo xamante ni bi sax jot nañ caa jële ay gaañu gaañu foofee nag tey ca marché Colobane la mbir mu doy waar moomee daal di xewee foofee ñaar ci ay nit nag jot ca ñàkk nag seen ba kan tey ji ginnaaw camion ba mu saaraane ba daal di jaar ci seen kaw ñu daal di jota ñàkk seen bakkan foofee ca jaaykat yi nga xamante ne bi ñoo nekkoon ca marché Colobane bu dakaaru